bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lanaa illa maa callamtanaa innaka anta alcalimu alxakim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 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar yu ci waxtu wi ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Dramé ki ngeen àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Bachiru Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka julli ci yonentam bu tedd te mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buur bi mi ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan yan nañu yàlla may kendaluk jàmm ñu di ko sant ci xéewalam yam ñuy xéewalal saa su ne duñu deñ duñu taay di ko sant ci xéewal yam ñuy dottil waaye xanaa dafa fekk ni rekk du na a ñàkk la budda wala shakk il faut ñuy fàttalanteeg mbokk yi lenn ci xéewalu yàlla yam ñu xéewalal te mu doon xéewal yoo xamante ne du jeex fa moom du xaaj fa moom waaye daf ñu ne bu ngeen ma sante ci sama xéewal yama leen di xéewalal ma yokk ma yokk ko moo tax mu ne ñu la in shakartum bu ngeen sante la azidannakum dinaa yokk xéewal yama leen di xéewalal ba tax ngeen di ma sant waaye nag wa in kafartum bu ngeen weddee xam leen ne inna adabi la shadid sama mbugal yama yore jagleel ko képp ku salfaañe xéewal yama ko xéewalal wala képp kuy bañ a sant xéewal yama ko xéewalal na ne sama mbugal jooju dafa tar ba tax na bokk na ci xéewalu yàlla yi nelaw yam ñu xéewalal ñu bokk ko mboolem bindaafoon yay jëfandikoo xéewal woowu di nelaw ba tax na mu di wax doomu aadama bi waaye jullit bi am ci particularité bi nga xamante ni keneen ku dul jullit bi amut walla ci la yàlla di wax ak jullit bi ba tax na mu ne ñu yan doomu aadama yi waaye jullit bi moo moom aaya ba yàlla di wax ak moom ci téere alquran ba ñu yore ni boo demee xool ca suratu ruum dinga fekk buur yàlla mu ne ñu wa min ayatihi bokk na ci kawtif ba yàlla xéewalal jaami manaamukum seen nelaw ba ngeen di nelaw bi layli ci kilima bam leen offrir te mu doon kilima guddi bokk na ci xéewal yooyu ñaari xéewal benn bi di la nga xamante ne mooy nelaw beneen bi di jamono bu ñuy jëfandikoo nelaw boobu te mooy kilima ba ñëw muur ñu yàlla installé ñu ko mu roof ngelaw yu fiix ak dallukaay bi nga xamante ne duñ ko mën a amee feneen wala ci neneen lu dul ci climat boobu moo tax mu tuddul ñu bokk na ci xéewal yooyu ngeen di jëfandikoo mooy nelaw waaye moment bi ngeen koy def tamit mooy guddi kon képp ku xool la nelaw di njëriñ doomu aadama dinga gis ne ndekk yàlla yore xéewalu nelaw waaye képp ku dem gëstu moment yaa ngi koy def di waxtu yu guddi dinga nga gis ne ndukkite buur yàlla moo ñuy installé climat bay ñëw installé suñu kaw te mu doon guddi buy ñëw kenn di ko yëg kenn di ko bàyyi xel da ngay gis mu dal di installé si jaww ji waaye bu de du def bruit du tàggoo waaye kenn tamit mënu ko bañ a teree ñëw mooy guddi waaw leeraay bi fi nekkoon fu mu dem. kenn na duñu ko wax waaw ku ñu koy wax tamit xanaa du da ngay caloo rek la yàlla ne bëccëg bi fi nekkoon te mu ànd ak leeraay dafa am fu mu ko yóbbu moo tax mu ne ñëw bokk na ci kawteef ba mu yore mooy nelaw bi ngeen di nelaw ci guddi mu doon xéewal ñeel leen yeen doomu aadama yi waaye bokk na ci xéewal ya nekk fa moom yàlla mu ne wan na xaar ak bëccëg bi nga xamante ne fa ngeen di faggoo la nga xamante ne mooy seen wërsëg ba tax na bëccëg boobu buur yàlla ne ñu wabtiraa ukum min fadlihi ak fàggu ba ngeen di fàggu ngénnil ba leen yàlla tasal ci kaw suuf si ngir ngeen dem sàkku wërsëg ba leen di dundal yàlla ne li ma leen joxoñal nii inna fi daalika mu ngi ci li ma leen joxoñal nii la ayatin kawtef bi nga xamante ne ña ko war a mën a xelaat mooy li qawmin yasmaun mooy xeet wi nga xamante ne dañuy nangoo dégg waxu yàlla waaye dañuy nangoo dégg la yonent bi andi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa baaxee nañu ci suñu téere alquran da nga xamante ne mooy la jullit yore ñu di ko dundu ñu di ko jëfandikoo mu ne dafa am aaya ba nekk ci téere bi mu doon téere alquran ba jullit yi di jëfandikoo nee na képp ku yeew ci nelaw gannaaw bi nga sante yàlla ne ko alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur loo ci war a mën a teg gannaaw bi nga yeewoo ngir nga dugg ci sa bés bi duggin bi nga xamante ne dina doon duggin bu mucc ayib ndax dinga nga fa jara làqu ni nga sàkku kaaraange jara sàkku kaaraange képp ku def la yonent bi tegtal ni boo yeewoo noonu ngay duggee ci sa bés boobu amul kenn ku am garanti bu toll ni yow mi tegtaloo na yonent bi joxoñ ne noonu la jullit bi di war a waajalee bés ba muy waaj a dugg si nii kon ñu nit ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa yan nañu yàlla may këndaluk jàmm ñu ngi waaj a dugg ci bés bi yan nañu yàlla may bés bi mu doon bés bu fees dell ak yiw waaye semaine ba ñu waaj a tàmbale ni yal nañ ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim yal nañu yàlla bàyyi fi ñu yéggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ak yeneen bisi yëpp kon su ko defee ñu tàmbali dugg ci biir semaine bi ci tegtal ba ñu ci bi tegtal sallallahu alayhi wa mu nekk aaya bu mag ci alquran ñu ne bu fekkente ne buur yàlla tabaraka wa daa yore màndarga ju mel ni eh, kursi ñu ne aaya ba ko composé mooy aaya bi nga xamante ne mooy ayatul kursi buñ ne kursi nag ñu ne moo tàmbali ci audu billahi min alshaytaani arrajim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taaxuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi lsamawati wa ma fi l ard man da alladi yasfacu cindahu illa bi iznih yaclamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuxiituuna bi cheyin min cilmihi illa bimaa chaa wasica kursiyuhu alsamaawaati wal ard wala yacuuduhu xifduhumaa wa huwa alcaliyu alcadiim mbokk yi bu dee aaya bi mooy aayatul kursi yonent bi sallallahu alayhi wa tegtal fa njëriñ ak faa'ida bu kenn dut lim ci waxtu su gàtt tellement dafa bari njëriñ xanaa ñu géem a góorgóorlu rek ci ndigalu sëriñu daara yi ak ndigalu ñoñu alquran ñay safoo alquran gannaaw buñ ñu joxee ndigal ñu giim ko tekki mu tombeku waxtu su gàtt euh, yang ñu jagleel yal na ñu yàlla jàppandalal ñu defee ko comme ni mu dëppoog na mu nekkee lu si jub nag ñu di ko sant yàlla lu ci dëng nag ñu ngi koy jéggalu di jéggalu mboolem sëriñu daara yi ak képp kuy safoo alquran mbokk yi yan jàmmi yalla nekk ci yenn ak seeni njaboot bur yàlla tabaraka wa day wone màggaayam ak dayoom ci moomeelam ak lamu bind mu nekk fii di aji sax dàkk ba keroog mu di ko fi jële waaye mu seppi jëmmam ci màndarga yoo xamante ne daa nuroog màndargay mbindaa fooni ba tax na mu ne ñu allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum yàlla di allahu mooy buur bi nga xamante ne laa ilaha amul benn buur illaa huwa ndere moom yàlla moo fi nekk di aji dundu di aji sax dakk taxawee jëmmam taxawee mboole mbindaafoon yi seeni nekkeen moo tax mu ne alxayul qayum mu teg ne laa taaxuduhu sinatun wala nawm deeti yàlla mu di kay sëngéem wala di jayaxu surtout nelaw di ko dab waaw kuy waaja nelaw mooy sëngéem kuy waaja nelaw mooy jayaxu yàlla mucc na ci màndargay sëngéem wala màndargay jayaxu surtout muy nelaw yàlla mucc na ci sëngéem sëngéem du ko dab gëmmantu du ko dab te du kuy nelaw mu teg si wone moomeelaam ne moo lam ñu bëgg a wax ni moo tax mu ne ñu lahu ma fi samawati wa ma ard ñeel na yàlla mboolem la nekk ci juróom ñaari asamaan ci moomelam la ñu nekk ñeel na yàlla mboolem la nekk ci juróom ñaari suuf ci moomelam la ñu nekk buur wi tabaraka wa mu di wax tamit tegtal bay xew keroog bés pénc ni mbiri moo ko moom ci nguuram lañu nekk ba tax na mu posé fi question soxna Mari bu dee noonu lañ koy waxee mu daldi di posé bu toll ni mu ne ñu man zalladi yasfau indahu illa bi izni ana kan mooy kiy ràmm keroog bés pénc lu dul ci ndigalu yàlla fa moom ana kan kuy ràmm jaami fa yàlla keroog bés pénc lu dul dala jox ndigal amul kenn ku ko mën a def donte yonent yi la xanaa ki nga jox ndigal lii mooy réponse mu teg si ne yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum waaw lépp li ngeen nekkee yàlla ne mu ngi tege sama kanam ma di ko xool di ko séen di ko gis xam ko li ngeen def bi fàtte ko xam naa ko li ngeen deful sax xam naa ko bu ngeen koy def xam naa ko noo ngeen koy defee xam naa ko kañ ngeen koy def xam naa ko moo tax mu ne ñu yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum lépp lu teew xam naa ko lépp lu fàddu xam naa ko lépp luy dégmal xam naa ko waaye xam-xam bi ni mel amul kenn ku ko am ku dut buur yàlla tabaraka wa taala ndax mooy xaaliqu kulli shay wa huwa bi kulli shayin alim moo bind lépp te lépp la xam amul dara la génn ci xam-xamu yàlla aaya bi dina ko àndi mu teg si ne wala yuxiituuna bi shayin min ilmihi amul dara lu dul xam-xamu yàlla wër na la yaa ngi tàbbi ci xam-xamu yàlla mu teg si ne illa bi ma shaa la yàlla sopp la yàlla sopp ne loolu moo war a génn ci xam-xamam loolu mbiram la waaw lu sopp ne loolu moo war génn ci xam-xamam loolu moo ko xam te bu waree nekk tamit ci coobareem lañu nekk wan la ne amul dara lu génn ci xam-xamu yàlla xam-xamu yàlla lépp la rond maanaam lépp la wur kepp wur ko dajal ko amul dara la génn ci xam-xamu yàlla lu dut lu ko soob te loolu mooy la mu xam loolu mooy la ko soob te loolu yëfa boo fi nekk yow doomu aadama naan danga naan la war a génn ci xam-xam yàlla lan la war a doon yow dangay jeex te doo xam loole kon la wéete wóor mooy bañ kaa gëstu yemal rekk fu mu ne lu dut la ma soob man yàlla la soob yàlla nag loolu kenn waru koo gëstu waaw gëstu ko sax amaana seytaane dina ñëw wéttali la ba nga doon ku weddi yàlla ci gëstu boobee ba tax na ah doyloo rekk ni illaa bi ma sha waaw boo fa doyloo su boobaa nag nga mucc sa xel mucc sa jëmm mucc sa pas-pas mucc waaye booy géem a curiosité di géem a di géem gas a ah su boobaa de am na loolay xeeñ loo xamante ni du doon la la su ko defee nga yem foofu fu mu ne illa bi ma sha lu dut ko soob mu teg si ne wasi'a kursiyuhu samawati wal ard buur yàlla nee na bu dee jëmm ju am gàngonaay la bu dee jëmm ju am fauteuil la bu dee jëmm ju am fa muy jëfandikoo nee na gàngonaay woowu wala jëfandikukaay woowu ëpp na juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf kon jëfandikukaay woowu ni mu mel allahu alam bi yàlla xam loolu bur yàlla ne ñu wala yauduhu xifuduhuma awma benn coono awma benn difficulté awma benn tayal pour wattu juróom ñaari asamaan bu ne caw si kaw te musul daanu seen kaw walla am coonoy wattu juróom-ñaari suuf ba nekk seen ron mu tege pour wattu ñaari mbindaafoon yu mag yi ak la nekk seen diggante ak la nekk seen biir yàlla nee na awma benn difficulté pour sàmm loolee mu tëjee aaya bi ne wa huwa al-aliyyul adiim yàlla mooy buur bu amul dara lu féete yàlla kawe yàlla kawe ñeel lépp yàlla kawe lépp amul dara lu dab yalla ci kawe ak ci teddaange waaye mooy buur bu màgg bi nga xamante ne melokaanaami foo ko takk ci màggaay foo ko tagg ci màggaay weesu na ko yàlla moo xam màggaayam fa mu tollu ci dayo waaye mooy buur bi nga xamantane mooy buur bu kawe amul dara lu ko dab ci kawe moo moom juróom-ñaari asamaan ak li ci biiram moo moom juróom-ñaari suuf ak li mu ëmb waaye amul kenn ki nara atte ki nara ràmm fa moom yàlla keroog bés pénc lu dul dala jox ndigal xam-xamam peeg na la teew ak la weesu ak lay dëkk mël amul dara lu génn ci xam-xamu buur yàlla tabaraka wa taala lu dut la ko soob te loolu mooy le méngoog coobareem waaye bu dee da di jëmm joo xamante ne day jëfandikoo gàngunaay nee na sama gàngunaay bi sama foto bi yaatu na ëpp na juróom-ñaari asamaan yi ngeen di seen nii sama gàngu nay sama photo yi ëpp na ëpp na juróom-ñaari suuf yi nga xamante ne moo wër àddina wër ngal képp te amul benn jafeñ-jafeñ pour wattu ñaari yi juróom-ñaari asamaan la fa nekk yàlla ne awma benn jafeñ-jafeñ ngir wattu ko waaye juróom-ñaari suuf bu ne nemm seen ron awma daray difficulté wala dalay coono ngir wottu ko waaw fi ngeen ganese fekk ko fi fi ngeen di dund bu ngeen noppee ngeen dem bàyyi ko fi ba keroog bés pinc ma di ko fi jëlee kon lii da loo xamante ne du ñàkk ñu fàttalante ko mbokk yi su ko defee ñu xamee ko nii yow mi yàlla wërsëgal nga yore sa waruwaay booy dugg ci sa waruwaay nan ka jàng waaw nang ka jàng nga muslu yàlla sàmm la ba nga àgg ci jàmm fa nga nekk di jëm mu doon loo xamante ne mooy lalay aar boo ko mënut a jàng tamit nang ko teg ci euh, euh, band bi nga xamante ne moo xam rajo la moo xam téléphone la nga teg ayatul kursi muy jolli ndax daldi musluwaay wi nga xamante ne mooy aar doomu aadama leneen li nga jëfandikoo lu wutik lii wóorul waaw noonu la ñuy jaaree nuyu suñu mbokku sofoor yi nga xamante ne ñooy yëpp nit ñi yóbbu leen ci seen bérébu liggéeykaay waaye yow mi yore particulier aussi ñu ngi lay fàttali aaya bi waaye di la ñaax ci du'a uruku bu daaba di nuyu suñu mbokku sofooru Dakar dem dikk ku mel ni Ibrahima Diouf mu nekk receveur mooy ki nga xamante ne mooy dagg tike yi ci société Dakar dem dikk ñu koy nuyu ak sama waaju baax ki ñu naan Modou Jaxate waaye fàttewuma moor Ndiaye ak euh, ki nga xamante ne mooy sëñ Mansour Jaxate waaye noonu la ñuy nuyoo tamit ibnu euh, ibnu benn maa ngi lay nuyu di ba léegi ñoom ñëpp ñu nekk fidèle auditeur ci Dakar Dem Dikk ligne onze bay daw Kër Massar unité 24 waaye noonu lay nuyoo tamit responsable bu mag ba nekk ci euh, terminus liberté 5 ñu di ko duppee Mor Fall maa ngi koy nuyu di ko ziar waaye fàttewuma ba léegi suñu fidèle auditeur di góor gi gay depuis ci nga xamante ni mooy eh, Kër Massar parcelle unité 24 Saane sofoor Dakar dem dikk la ñu koy nuyu ñoom ñëpp ñu bokk di déglu saa su ne réew Rewmi FM 97 point 5 ñoom ñooy ñay yóbbu nit ñi jëlee leen Dakar andi leen béréb boobu. waaye ñu di leen jëlee ci béréb boobu yóbbu leen fi nga xamante ne mooy fa ñuy liggéey yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla suqali kër gi ñu ngi leen di nuyu ay fidèle auditeur lañ ak ñeneen ñu fa nekk ñi nga xamante ne amaana euh, fàtte nañ seen tur yan na leen yàlla fa yal na leen yàlla sàmm aar leen waaw euh, ñaan bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal ne jullit bi yow mi war sa waruwaay euh, dafa war nga di sakku ñaan di wax bismillahi alhamdulillah ginnaaw bi nga duggee ci sa oto na wax bismillah boo toogee na nga wax alhamdulillah waaw ñaan ba yéen yàlla tegtal yonent yàlla noox keroog bam kone ko ne nga yëtt gaal yëtt na gaal ba noppi mu ne ko nang ci dugg buur yàlla tabaaraka wa taala ne ko moteur bi koy dawal ak la tax muy daw mooy na nga ne subhaanalladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibuun subhaanalladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibuun boo noppee nga ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ñetti yoon boo ci noppee nanga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon boo ci noppee nag nga teg si ne subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir lii innahu laa yaghfiru zunuba illa ant képp ku dëkkee di ñaan ñaan bi moo xam transport en nga yore moo xam particulier nga yore ndem sob na suñu borom tabaraka wa taala gannaaw bi nga làqoo sa mbir nga jébbal sa yëf nga ñaan kaaraange ju toll nii yal na la yàlla aar comme keroog nu mu aaree gaali yonent yàlla nuux keroog bu gaali yonent yàlla nuux yu tombee ci ndoxu tuufaan waaw ndoxu tuufan ba war a alak waa goxu yonent yàlla nuux keroog gaalu nuux alayhi salaam la ko yàlla garanti ne boo jàngee ñaan bi sa gaal gi dina mucc te lii mooy sobeeloo sa gaal gi kon yow julit bi fekk yaa ngi sàlloo fekk yaa di référé wu référence tegtal joxoñ ba yonent bi joxoñ ne lii mooy musluwaay bi nga xamante ne cépp kuy war waruwaay avion moo xam bato moo xam gaal moo xam oto moo xam train BRT teer beeg lu munti doon na wax bismillah boo toogee na nga wax alhamdulillah boo ci noppee na nga ne subhaanalladi sellaange ñeel nañu buur bi nga xamante ne saxara lana haada moo ñu tàggatal waruwaay bi ñu war ni wa ma kunna lahu muqrinin déet ñu dikk nga xamante ne ñoo ko créyal suñu bopp du lu ñu suñu bopp de taaru waruwaay boobu bum la yóbbu bi nga yiim fàttixi walu yàlla déedéet na wa inna ñun ak waruwaay wii ilaa rabbina fa suñu borom la xali munqalibuun mooy suñu jëmu waay taaru waruwaay bi day jeex waruwaay bi si jëmam day jeex ñu ne dañuy jeex bu ñu jeexee ba noppi fa ñuy doob fa ñuy dem fa ñuy dem teeri fuy doon suñu teerukaay du fenn du si kenn kudut suñu borom mi ñu tàggatal waruwaay bi ñu war ni su ko defee nga ne alhamdulillah sant ñeel nañu yàlla alhamdulillah sant ñeel nañu yàlla alhamdulillah cant yi ñeel nañu yàlla boo ci noppee ne allahu akbar yàlla màgg na nga ne allahu akbar yàlla màgg na boo ci noppee nga ne subhaanaka allahumma set ak callaange ñeel nañu la yow yàlla kenn na waru laa dara ci li ñu wërsëgal ni nga teg si ne allahumma buur yàlla inni dalamtu nafsi man ku tooñ laa sama bopp ku dëkkee tooñ sama bopp la kon maa ngi lay ñaan faghfir li yàlla nga ma sutural yàlla nga li fi nekk kañ laa yaghfiru zunuba illa ant amul kenn kuy jéggal bàkkaar amul kenn kuy sutural nit ñi amul kenn kuy xettali nit ñi ku dut yow yàlla yàlla dafa bëgg saa ne doomu aadama bi di def al inaab tawba waaw ngay dellu fa moom xam ne moo fi nekk lu fi am mooma ku mucc mooma ku mu àtt ci yow leneen lu dut mucc mooma waaye nag dénk ko sa bopp waaw kañ su ko defee loolu mooy li wuur waaw nañ leen mokkal ñaan bi ñu di ko gima nab nabi waaw mooy bismillah alhamdulillah subhaana alladi lana hada wa maa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu laa yaghfiru zunuba illa ant su ko defee mu doon la leen réew mi fm 97.5 andil leen ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalanteeg ñun ci waxtu bi saa iliina mawla jalla wa ala an yajcalanaa min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nara jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ca nasaraan noo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak topp allahumma aati nufuusanaa taqwaaha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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu